buub bu nuy na yaar na ma la bar sëñ Bamba Lora bu ñëw rek nga daw dugg si attaqué ko quoi tey du lamb ji tey signature dañoo waroon bëri léegi ndax ñoo ngi si stade bi xaar bi daa yàgg barke ay xale bar sëñ Bamba kii lënd la daa yàgg yaxu daaw la billaay daa yàgg jëli naa ko mu ne soo leen ko seetee fa fii du wax ah lu ko benke moo ko ñenke waaw bilaay doole kaa ñaama xëy yàlla daan naan doom ah yaay màgg naa man xale laa amaguma sax at nu ma neex mun naax ko toll daan naan ay ay maam la naan man du naan doom xaw ma ko Bamba moom ay maam la naan te doole ka ñaama xëy yàlla. xëy mbir ne bii mooy dixième bis mënu rëy ci moom te yow da ngay fi ne ci sóob ci yëngal di jéem taalay yee li su bëre samedi ma war a bëre dimanche damay dem estade bis réyul si man dara dawul sama yaram si àdduna non dara li dara yàlla nañ dooli sutura rek bandi lay bandi lay la këram jabaram toggal la yaasa la la fee jabar ju pata bu mool. bu yéen ma yem mais yebu ma. su nga yoonu làmb rek. barki leeru alxuraan su ma waxee bu du wax. maa bu doole. yàlla am doole. yàlla na ma yàlla kàttanal. bu yàlla di may lu yàlla di may fekk jeexul fu ma ko jàpp fu dul si karaw dama koy daan. yàlla noppi na lees waxul dara. ay Laurent a ngi si jàmm. lu ñu lay lu nee nañ ma papa jaasi yoo colonie yaasi yoo. papa cendi Monique Pekali. waroo si Barabosa. sëñ Bamba abuku a yaw abuku manjako di kafur akapu ci tego ci amundu ci ci naada aduna du dara sëñ Bamba aduna du dara te yàlla noppi na lees waxul waaw mais lees a war wax boobu tey daa noppi lees sama jaaxal na lees sama jaaxal gaaya kay woo bu sita lora non bu boo pare. de ay. ah damaa pare ba yàqu. kii dafa maa faa. day faa góor moo tax. moom day faa góor danaa xamal roxam yi day faa góor. dama ne ba ma gisee wala mu ngi cëfar cëfari rek. moo loolu ñu ma gisee la xol bi seen. man dinaa dinaa man maay keroog arène nationale la moo tax moom bu waxee loolu boppam waxal keroog dañ doon tiyaati la moo doo ñëwul tapet moom xam na lu tax ñëwul arène nationale. mu daw agressé la. waaw ah dina loolu. lamb ja loolu lay yàlla def loolu. billahi wa day muusantalu rek. Roi day muusantalu rek man dégg naa ay coach lu ñu wax. li coach wax li ay coach wax moom moom moom loolu la may wan nii. ki dama ko gën a nekk bandi. ki dama ko gën a nekk bandi gën ko nekk waga. xam nga te combat bi dafa nekk combat a xam moom dafa woote milieu te imagine toi ngay bëre bu Siteu di woote milieu da ngay yaa ngi rey sa bopp. woote milieu boo xam te ni moom saf na ko sap dem na fi ñaari tali Grand Dakar booy nangu jagataam te loolu du taxaw mukk ba wax ko waaw te milieu la woote dafa woote si loo xamante ne nii baaxul si moom tey jii bu Siteu kuy bëre moom da ngay teey di wax ak moom ndànk signature mais ngay mbaraju rek génn sa tiktok yi di wax rek. ma ne ko yow lan moo tax nga gis buura daw attaqué ko mu réer la ma daal daal doom. ndeysaan waaw gis nga noonu lay <laughs> ma ne ko yow yaa koy jiiñ bu buudi la ko. Serigne Touba Mbacke boobi parewul boobi naa ko teg lu métti. kii comédien la comme li ma la waxoon rek jàppale yi bokkul benn jàppale yi bokkul mystiquement mystiquement jàppale yi bokkul si mystiquement ñu koy ñaanal. xanaa xaw ma maa non booy ne la booy dama ko yërëm. barke sax dama ko ma xalima dama ko yërëm quoi. kii am na sama maara boo xam sax tey jii mu ngi liggéey ak moom te xamul ne na boppam. barke na boppam laa la wax bu ma wax su ma waxee day indi day saa yi du ma wax su ma waxee rek day yàqu te saa mu ngi liggéey koo xam sama maara la ñu ngi jokkalante naaj. da ngaa bëgg a wax maara beeg non xaw ma ba xam moo ko jox de maanaam booy bi dof la ngaaxa pees. mais du ma tudd turu Mara maa moon ñu ngi liggéey muy may na liggéey si booy bi moo tax booy parewul dof la ngaa xala ma sama dixième combat ma la dama waaw man dama dama xam làmb yàgg ci waaw 2016 daal dugg si làmb nag yàggul yàgg na mais waaw man dama tarbi wu quoi dama tarbi moo dama la booy bi du booy mooy téye